maa la koy wax sànq ñoo ma yóbbu biir néegu rab ñoo yóbbu biir néegu rab on avait commencé à bosser si projet bi euh, def na deux ans def na deux ans ñu job si projet bi <laughs> euh, mais voilà mën naa ne ba ñu ba ñu commencé amuloon contrat amuloon dara. mais mais yow da ngeen a bokkoon groupe. yeah c'était pas un groupe collectif la woon. da ngeen a dajaloo rek pour benn projet boobu. benn projet boobu. looloo nekkoon idée bi à la base loolu la woon. dañoo euh, projet pour cinq boys yoo xam ku si nekk dafa am carrière solo woon man j'en faisais partie après ba di génne on nous a proposé un contrat. contrat boobu di def buzz. ngeen commencé bomb médias yi di daw tout le monde voulait vous avoir sur les plateaux le succès vient avec Ces bonnes choses comme les mésententes affaire bi commencé pression bi commencé bëri gars yi teg contrat ne la dañ la bëgg pour yow wala pour Akatsuki cartel bi. Eh, mën naa du wax duma wax problème la nak du problème quoi parce que proposition la rek. Uh-huh. ba ñu cartel bi ba ñuy joob cartel bi c'était pour le projet mais après voilà dañoo teg contrat boo xamante ne man daf may tënk en tant qu'artiste daf may tënk carrément. bugguma nag dugg si détail artiste ah, kii bi nag nan la tudd détail yu contrat bi mais voilà daf may que quoi loolu dal mën que mën après ba ma si ak sama staff dañu dañu continuer ci projet parce que daf ñuy barré quoi te loolu nekkuloon li taxone ñu ñu sé bokk. d'accord suma veux comprendre bu baax. wéeréer dafa ñëw am buzz. gaay contrat yi ne la kay nga signé contrat wu euh, bu fi nekk nak di wax cinq ans. non du wax cinq ans

non nous, sunu sunu kii sama staff. nous discussion yi ñu am projet bi ci le label bi la muy mais le label sous très avec euh, Universal. lolu lolu ñun am man mënu ma wax parce que man wax ak Universal wax wax man staff sama staff sama staff bi lañ avant après voilà ba affaire bi voilà.

job du liguey quoi parce que c'est une famille. Euh. parce que man ñooñu ñi ma lay wax ni xam nga len xam na len ñoma ma yar. Mm-hmm. seen kanam la màggee voilà ñom ñoma ma ñoo tax bu hip hop amuru ma si am tay day nan de day day day sol kawas kawasi kaws mais bon on va <laughs> ñeneen ñaar ñi ay wàlliwu lan nu baax lan du ma wax dar mais euh, na len jaay pi tax dal nanu xamé noonu affaire yi ah